برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام واسم الذات وصفتها واسمها نيت رك ذات موي يالا صفه مو صلى الله عليه وسلم اسم مو الشيخ التجاني رضي الله عنه هناك مظهر الوجود لور تخ نياري صفه يويو لا يلا وقت القران ثاني اثنين اذ هما في الغار يلا موي نيارل نيار بي نيكي تي خرو دنگ زاتي ميم اي بي بو واتيه ci hijratu nabi sallallahu alayhi wasallam sallam mu ngeen nak abou bakri nek ke ci xaar te même wacce na fofu ñu ngi zahiruha fi dhalika walakin batinuha wa huwa yani ruhu rasul sallallahu alayhi wasallam taala yàlla anu mi ngi ci ci jati allah taala te dara amuloon lolou cheikhu tidiane mo ñu ko wax ci waxam bu mu wax mu ngi nekk ci li faratu lahmadiyati taalifu seydi tayibu sufiyaanul akbar téere boobu waxi cheikh tidaani neen moo ci nekk mu ne ruuxi wa ruuxuhu sal allahu alayhi wa sallam ka hadayni fa asaara ila sababatihi wusdaahu min yowmi xalaqa allahu al alam ila naxfi soor فالروح عليه الصلاة والسلام تمد الأنبياء والمرسلين وروحي te muddul awliyaa wal aqtaaba wal aarisiina mu ne ñaari ruuxu rek man ak yonent mi suñu ñaari ruuxu nii lañu àndoon mu daldi tàllal ñaari baaranam yi waxtu yàlla bu mu bind mbindee fii jëkk bu mu bind mbindee fii nii la àndoon ci yonent mi sallallahu alayhi wa sallam waaye ruuxu yonent mi sallallahu alayhi wa sallam mooy pay yonent mooy naanuwaay yonent yi moo leen nandal dégg lépp seen nubbuwati seen xam-xam yépp mu ngi jógee ko ci googu ruux yi dégg nga mooy peey mboole wali yàlla yépp dalee aqdaab yi afraad yi siddiqiina yi aarifiina yi awliyaa yi muuminuuni yi muslimuuni yi ñoom ñépp ci suma peey lañ nekk maa leen di nandal maa leen di di xamal maa leen di may maa leen jox maa leen nangu maa def yépp moo tax ñu wax si yow daal ruuhul wujudi wa madadul wujudi wujudul wujudi cheikh ahmad bin mohamad tijani radiallahu an allahu bi barakati mooy ismu zaati malham tasmauna kalaman ajiban علما عظيما قلما تجدون هذا العلم مبسوط kutubi الكتب insanun إنسان يجلس يتكلم معكم هذا مثل هذا نعم هكذا ايه بور نين خام وقتان لو ام صولو لا دغلو كو لو ام صولو لا نده شيخ الدين رضي الله عنه وخني جواهر الماني مني كلمه واحده تسمعها ترقيك الى مقام ما لا يرقيك اليه ولو ابدت الله الف سنه mu ne benn kaddu rek ngay jégg aarif du ko wax kaddu gi dina la yéegal nga dem ci maqaama boo xam ne boo jaamoon yàlla junni atam doo dem foofu mooy samaaw samaaw lu am solo moo tax awliya yu jëkk yi toujours rek dañoo dajale seen taali bi waxtaanal leen yàlla lan yéegal leen mooy mooy taraqi waaye kay du nëpp rek ne cal دوخ دار ذلك ربما المعرفة تخرج من حيث دخل لابد من الكلام لابد من الإشارة ذاك هو المؤبر بالشيخ المربي والشيخ المشرف طيب. لجنك موين يتلقي ولا بق نجا جوجي فوف ñëw ci pay kitaaballah téere yàlla bi kitaaballah tatlu ayatahu bi siati maarifatika ngir nga wàcce ci pay téere yàlla bi ngay jàng aaya téere bi nga jàngi ko ci sa xam-xam bu yaatu bi ci yàlla kitab bobu xam nga alquran yépp faraw rek lay wax yàlla wax nañ ko ci alquran ci suratu wattuur wattuuri wa kitabin masdur mu ne mu ngi géñ ci leer boo xam ne bii dafay naaw di dóorante di duggante dara amuloon ko mooy moom rek leer rek ak leer fii leer min leer illa leer maa leer mooy boobu tey yàlla géñ na ko wa kitaabin mastuur seetal nag yàlla kat fu